asalaamaaleykum ma chers internautes ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar ci ajuma ji di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen xanaa rek ñu ñëwaat ci actualité lomb wax ci rebondissement bi nga xam ne am na ci kawu mbër mi di Ada moom nag Ada Fass ginnaaw bi ko waa police bu quatrième arrondissement tegee loxo ci xeex gu metti gi mu defoon ci benn baar bu tudd Chez Mbaye Dia nekk en face commissariat du quatrième arrondissement arrestation bi nag jur fi fii coow lu bare bare dinañ ko bàyyi léegi am duñ ko bàyyee bàyyeegum finalement yàlla wis na ci ndox bu sedd ndax mbër mi di Ada Fass libéré nañ ko niki tey ci àjjuma ji mu nekk nag une très bonne nouvelle pour famille am ak fansi yi waaye mbégte mi teewul yóbbante nañ ko ay conseil ñoom nag nee nañu na Ada defaraat toogaayam bu baax a baax ndax bëgguñu ko diggati ci lenn luñ koy xeebe gëm nañ ko ndax champion bi mu doon te roi des arènes la ñuy séntu moom kon ngelawaay na xoolaat bu baax a baax ay jëfam ngir ñoom ñi ko bëgg du samay kàddu nag voilà information baa ngi noonu Ada Fass libéré nañ ko niki tey ci àjjuma ji xanaa rek di ko ñaanal jàmm te it di leen jaajëfal bu baax a baax yéen ñi safo bi pro média ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci teewlu bi